أعلم بالقرآن yëkkati suñu kàddu muy kàddu boo xam ne bii ñu ngi ko jëlee ci président de la république président Macky Sall mu awale ko ci premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne di nuyu gouverneur région Diourbel sous-préfet bi ziyaare di nuyu sëriñ Moustapha Diatara nga xam ne moo fi toogal Mouhamadou Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides di nuyu sëriñ Moustapha Mbacké Abdou Lakram mi ñu jagleel bés bi di nuyu tamit kilifa yi nga xam ne yépp ñoo ànd ak moom ñëw teew bés bi tey muy sëriñ ahmadu im na sëriñ fàllu muy sëriñ cheikh aliou mbàkke muy sëriñ moodu mbàkke abdu wudóot muy sëriñ moustapha mbàkke abdu wudóot muy sëriñ Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wudóot nga xam ne maag moom sëq nañu ay liggéey yu bari moom ak Serigne Mbacké Abdourahmane xam ne danañu rafetlu torop kàddu yi mu fi wax muy kàddu xam-xam di nuyu tamit sëriñ Abdou Lahad Mbacké Abdou Wudóot di nuyu sëriñ Arona Mbacké Cheikh Mountakha munta Murtada di nuyu maam Bara Mbàkke di ko gërëm ci li mu déplacé wu ñëw préfecture fekkuñu fa moom tamit daje nañu ci ay bari lu bari di liggéey te saa yu ñëwee seet ma mbirum uh, jàng ak daara la may wax di nuyu sëriñ ab Abdou Mbàkke Ndaw maire u Mbàkke di nuyu maire yi fi teew yépp awale ko ci Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo yore président maire u département bi di nuyu directeur yi nga xam ne ñoo fi teew jóge Dakar di ci ràññee directrice alphabétisation Ndeye ndaam Diouf ak directeur centre national des ressources éducationnelles Sidi Sam nga xam ne ñoom ñoo jagloo bés bi tey jii ndax ñoo yore mbirum alphabétisation ci ministère bi di nuyu inspecteur d'académie inspecteur yi fi teew yépp di nuyu ki nga xam ne moo fi toogal UNESCO sànq bi ñu déggee sëriñ bi muy wax dégg sëriñ Moustapha Diatara mu wax sëriñ Mbàkke Abdourahman mu wax ak sëriñ Moor Talla li mu wax ci sëriñ bi ñu nekk ministère boo xam ne bii ñun lañu dénk jàng mi ak jàngale mi li nga xam ne mooy doon nekk ci suñu bopp ñu koy xalaat mooy war nañoo sant yàlla gërëm président de la république président Macky Sall ndaxte su la dénkee loo xam ne lii baat bi njëkk a wàcc ci alxuraan mooy iqra jàngal nga ñëw di teew bés bu mel nii wax dëgg yàlla war ngaa sant yàlla ci ñu la dénk xam ne lu am solo la ci tabax réew mi looloo tax président de la bi mu ko xamee mu ne njàng mi du yem rek ci xale yi tout tànk yi nga xam ne dañuy commencé ñu leen di jàngal ijji di leen jàngal boole ba ñu mën a dem di liifantu di jàng mag ñi nga xam ne xëdd na yi yu nekkoon mayu leen woon bi ñu nekkee xale ñu jàng loolu tamit gouvernement bi daf ko war a boole ci njàng mi ak njàngale mi loolu nag liñ ci jublu mooy que ne yokk xam-xam ci réew mi ci xale yi ak ci mag ñi mag ñi tamit su boobaa dañ leen ci gërëm rawatina jigéen ñi tey daje bi won na ne ñoom ci njàng moomu ñoo ci gën a farlu boole ko nag di ci liggéey ci koom-koom ak di ci liggéey pour jariñ seen réew jariñ seen njaboot ñu ngi leen di gërëm kon ñoom ñi nga xam ne yépp ñu ngi ci programme yi ci turu président Macky Sall di gërëm ñi nga xam ne ñépp ñoo leen di jàngal ci loolu programme yooyu yu baree bari am na ci réew mi muy bu nekk ministère éducation nationale muy yu nekk ministère de la femme parce que liñ ci jublu mooy nit ki bañ koo jàngal rekk mu bañ a yem ci liir waaye tamit di ko jëfandikoo ci liggéeyam te jàpp naa tamit sëriñ Mbàkke Abdourahmane li mu wax nañ ko lawal ba ñu mën koo jëfandikoo tamit ci seen diine loolu tax na ñaari at ci ginnaaw ci bés bii maa ngi woon UNESCO àddina bi yépp kañ benn programme boo xam ne bii président Macky Sall daf ko doon doxal ma demoon UNESCO di jël prix bi muy prix international sur l'alphabétisation boo xam ne bii UNESCO moo ko doon jox président Macky Sall kon boobu ñu xam ne suñu réew def na ci ay jéego ci loolu nag mooy Sénégal yemale ko ci bés bii tey daf ko yem daf koo def mu nekk ayu bés mu nekk semaine nationale de l'alphabétisation waaye dama ne njàng li ñu jàng tey ci bés bi su fi yemoon rek ay bés bi mat na sëkk ci xam-xam ak lu ñu mën a jàpp ne moom war ñu war a liggéey ci mbirum alphabétisation ndaxte su fekkee ne ñëw nañ fi sëriñ Moustapha jatara ñëw toogal fii sëriñ bi sëriñ bi ku nekk xam taxawaayam ci jàngale ci defar ay jàngu ay école université ba nga xam ne nit ñi dañ ci am xam-xam te projet bi mu wax ne moom la bëgg suñuy wax awam ñu wax ko mooy sàkku xam-xam kon ñun dañuy sant yàlla ci loolu li ma bëgg a wax rekk mooy li Mor Talla wax Serigne Mbacke Abdourahmane wax ko Moustapha Diatara wax ko ci Moustapha Mbacke Abdoul Akram mënuñu cee teg leneen kon boobu xam nañ ne bés bi tuddee nañ ko kiñ ko war a tuddee tuddee nañ ko ku ko yeyoo dee dañ ko koo xam ne kii jaar-jaaram bi ñu fi wax ñi nga xam ne ay tuut tànk lañu di yëngatu ci mbirum xam-xam suñ ko déggee am nañu royukaay am nañu référence bi Serigne Moustapha Diatara doon wax looloo tax ñu tuddee ko ko ndaxte bés bi dafa làmboo alphabétisation waaye dafa làmboo tamit tabax nit ki ba nga xam ne dana mën a liggéey àddinaam moom taxaw na ci xam-xam lal na ay daara ay nit tàggat na leen yar na leen yemul foofu liggéeykat la dafay liggéey dafa yore ay toolam dafay yëngatu ci àddina pour économie réew mi jëm kanam kon boog moo tax ma ne bés bi tuddee nañ ko kuñ ko war a tuddee li tax nag ñu sawar ci mooy nit ki soo ko tuddee dara mbokkam yépp taxaw ku ci nekk jàpp ne moom nga ko tuddee kon boo xam nga ne bi ngay tànn juumuloo sëriñ bi ci boppam jàpp ne kiñ ko tuddee war nañ ko koo tuddee kon boob ñi nga xam ne ñoo ko xalaat mu aw ba dem ci président Macky Sall ñoom ñëpp rafetlu ko wax dëgg yàlla ah ñun de rëccuwuñu liñ ko tuddee dañ ciy sant yàlla liñ ko tuddee bés bi bés bi tuddee nañu ki ko war a tuddee ayu bés bi ubbee nañ ko fu ñu ko war a ubbee mooy mbàkke gi nga xam ne sam xam-xam moo ko lal xam-xam boo xam ne bii ki nga xam ne mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul Cheikh amadu bàmba moom moo ko fi lal kon boog ay xéewal rek lañ ci mën a am. man jàpp naa ne ki ñu tuddee bés bi te moom ci boppam mu ne bés bi sëriñ Touba moo ko moom ñu defee ko Mbàkke gi nga xam ne li ko lal xam-xam la suñ fi ñaanee tey ne senegal li mu yéene ci njàng mi li nga xam ne fal war a yegg ci jàng ci alphabétisation na ko yegg yàlla dana ko nangu kon boog sëriñ bi ñu ngi ñaan ngeen ñaanal réew mi ngeen ñaanal président Macky sàll mi nga xam ne moom moo yore réew mi tey ngeen ñaanal département éducation nationale ñaanal directeur yi nga xam ne ñoo ko yore pour que liggéey bi ñuy liggéey yàlla may leen ci ndam mu nekk njariñu Sénégal rek nekk njariñu Sénégal yépp tamit kon boog yooyu kàddu laa amoon lu ma ci wax ci wolof di wax rek ne danaa gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci inspection d'académie bi nekk ci inspection éducation formation Mbacké bu Diourbel ak bu Bambey ak ñi yore mbirum alphabétisation ci taxawaay bi ñu taxaw ba cérémonie bi am tey jii ñoom ñëpp sonn nañ ci di gërëm sëriñ bi tamit ci taxawaay bi mu taxaw def alalam def dooleem yëpp ci cérémonie bi tey ji ñu ngi ko ciy gërëm ci turu président Macky sàll ci turu gouvernement bi